ambiance bu mucc ayib bi nekk ci mbeddi Espagne yi image exclusivement Aladji Malick TV sunu reporter di Serigne Fallou filmé ko yónnee nu ko ñu bàyyi leen ngeen dundu ambiance bi ñu continuer xibaar yi ginnaaw image yu am solo yooyee ñu commencé nag xibaar yi nag di deuxième vidéo avant ñu àgg ci troisième vidéo bi nga xam ni muy gën a yaatu ba nga am na ko ndax émotion bi moo ko jàpp yi nga xam ni yéene na ko équipe na koo xam ne di xaritam xamul luy trophée miinul luy trophée gars yi maa ngi leen di ziar ci kàddu gu seen mbokk seen xarit seen am di jàmm Aladji Malick TV sàkku naa ci yéen abonnement yi ngeen coppatel ma ko ndànk ñu àndandoo def liggéey bu mucc ayib boo xam ne ñun ñëpp muy catalan muy merengue ñëpp ñoo ci ànd muy Citizen Arsenal yeeg Bayern yeeg lépp ci biir ñu gis ni maanaam Bellingham ngoog ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ca match boobam jeexee ngeen ni dafa mer ba fëtt nag maanaam di dóor ay euh, kurfañ ak ci li nga xam ne moo nekk tableau yooyu ñu doon defar di ko préparer pour li nga xam ne mooy teg ko ci final bi ak banc de lépp nag li ko waral xam ngeen ko mooy jafe-jafe ak liggéey bi nga xam ne liggéey na ko ba ak ci fii tey it mujjul dem ci li nga xam ne mooy yóbbu final ba yóbbu coupe ba fële ca Angleterre loolee nag du guléet ci moom ndax du moom rek moo doon football bari na ñu doon football bari na équipe bi doon football kenn comme ci man di doon ñii teel na noo toog ñii teel a dem waaye loolu lépp dañu ànd ak muñ xam ne football moo demee noonu kon courage euh, jàmbaar moom mii nga xam ne mooy Jude Bellingham di international anglais euh, di football fële ci Real Madrid tey taxawaay ba nga xam ne am na ko ca meilleur club du monde taxawaay boobee am na solo bu baax a baax kon loole yal na jëm kanam ñu daal di koy xoolaat xool li nga xam ne mooy Espagne jégaluwaale ci buru yi ngeen di dégg ngeen comprendre ndax yaakaar naa ne dëkk bi fii ñu nekkee gars yi dañoo am xol bu sedd ci seen équipe ndax moo jël final bi moo tax baraj baraj yeeg moto yeeg lépp ci biir loolee mënees na ko comprendre c'est euh, nga xam ni bokk na ci lépp lu jëm ci wàllu information ma nga noonee Dani Carvajal moom it di màgget boo xam ne bokk na ci li nga xam ne mooy ndam lu yaatu keneen ku ma fa gis nag xam naa ne gone yi duñ ko xam waaye mu nekk ki li nga xam ne André Iniesta ku xam André Iniesta xam safi seen taxawaay ci militaire rek équipe bii di Espagne kon ma nga noonee mat na sëkk yeneen information ci kanam tuuti ci victoire bu mucc ay bi Espagne am tey jii